jërëjëf Bécaye euh, maa ngi nuyu d'abord salle bi yëpp euh, rawatina aussi sunu mbokk journaliste yi nga xamante ne ni tey jii macha allah ñoom ñëpp teew nañ fi di leen nuyu également ci turu Cheikh Fallou Luc Nicolas di wax ne dëgg la combat bi taxaw na depuis yàgg na mais boobu ak léegi yàlla dafa dogal contexte bi nga xamante ne nii moo amoon tax na combat bi. kenn mënu ci woon wax dara tey nag ñu bëgg a door li nga xamante ne nii mooy démarrage u combat bi moo waral tey teewaay bi ñu leen di wax rek ci wax ju gàtt ne leen li bekkaay wax léegi dëgg la Luc depuis 1999 mu ngi ci làmb presque vingt ans parce que daaw rek la féete vingt ans ci làmb ji muy koo xam ne nii donc nit la ku am expérience ci li nga xamante ne nii mooy liggéeyu làmb di leen wax ne combat bii nga xamante ne nii moo ñu fi tax a teew tey muy diggante Modou ak Ama Baldé ñu bëgg a xamal presse national bi fi teew ak presse international bi yëpp ne leen dinañ def combat bi combat boo xam ne dina doon combat boo xam ne dimension internationale lay amee euh, di leen wax rek ne da ci bàyyi xel. parce que li Bécaye wax dëgg la 2001 la ñu tuddee Luc Nicolas le promoteur des grands événements depuis boobu ak léegi gis ngeen ko ci wàllu innovation taxawaay bi nga xamante ne nii moom la am ci wàllu làmb combat bii nag boo visité histoire làmb presque dafay bokk ci combat yi nga xamante ne nii depuis ci Abdourahmane ci Souley Ndoy ci Mbaye ci Robert ci Double Less ba tey fii ñu agsi combat bii dafay bokk ci combat yi ci gën a mag parce que dañu boole ñaari mbër yoo xamante ne nii non seulement ay xale lañu mais dañu am gannaaw kaar macha allah ba pare tolloo gannaaw donc daal ci wax ju gàtt di leen wax ne Luc Nicolas Enco comme li mu leen tàmmaloon rek toujours comme d'habitude muy Sénégal di leen defal ay événement yu mucc ayib di leen wax ne combat bi incha allah dinañ ko def événement international ci kàttanu yàlla di leen gërëm di leen sant.